Amina. Mm-hmm. dafa am euh, benn xale bu jigéen boo xam ni. Mm-hmm. dafa bokk APR ñu naan ko Rama Macky lañ ko doon wooye ay léegi day yaakaar naa Rama aada la xaw ma. Euh, non avant Macky dem jëkkër yaakaar naa la jël turu jëkkër ma indi daal su mais. Mm-hmm. xam nga am na lu mu wax loo xam ne xaw naa cee d'accord mooy tànk dañu koy banque. maa ñu tàllal wala ñu tàllal ko Amadou Ba démb ci discours am. nee ñu ngi nuyu waa Bennoo Bokk Yaakaar. yenn ci waa APR yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon mu tuddoon seen tur gis nga Amadou Ba bokk na ci ay catam. Amina yéen laay waxal. bokk na ci ay catam. ragal jël ay responsabilité politique boo koy jël te yow fixé objectif nga ne xoolal man lii laa bëgg a doon lépp lu ñëw bu ëllëgee ñu xam ne lii la yàlla ñu dogal tant que tolluwoo foofu noonu ci détermination engagement gis nga yow say militant say militant dañuy am limite parce que yow yaa leen di bloqué grand yu bare bare bare bare yu fi nekk nii loolu donc moom mooy seen différence ak ñi nekk fi tey gis nga booy politique da ngay jël benn affaire def ko objectif nga ne man lii laa bëgg point ku ma mënti négocier bu ñu yeggee ba ci point boobu mu war a nekk benn point bu ñu war a waxtaanee dama naan la grand nga ne ma naa ma ne la bon débat bi daal nañ ko clore nga ne ma ah bon mais non loolu duñ ko débat pour man damay nekk candidat ci mairie ci député wala présidentiel nga ñëw fii naan non man tam candidat laa léegi man ak yow nañu waxtaan ñu xool kan moo war a jiitu man ak yow kan moo war a jiitu. non jógal nga dem parce que man quel que soit alpha damay doon candidat nguur gi nekk fii nag ñoom depuis 2014 ak obstacle yëpp dañu jël objectif ne focus ñoom loo wax ñu ne la focus focus ci lan pale ba rek jëm kaw jëm suuf pale ba rek nu ñu fa mënti duggee. Mhm. pale ba rek. nañ dugg rek. point nañ dugg rek Amadou Ba nag. moom loolu catam la Amadou Ba problème mu boo ci nekkee te nga ne doo xeex nga ne doo jël position waaye sa waaye ànd ak yow day metti day ay nit yu ànd ak yow ànd ak détermination ànd ak arñe nekk ay bañkat mun débat mais yow même booy dem à l'antenne dañ naan la non sa waay question nangam bu bu ñu la ci laajee xoolal garaawul bàyyil noonu wala non diw bu ko tudd diw bu ko tudd teew diw ne ko au pouvoir attention Amadou Ba dafa am loo xam ne daf fee jot a jaar gis nga Mimi Touré bi mu demee ba maar ci loolu daa bàyyi ñooy ay nit ñoo xamante ni yow Macky sàll saa yi bu tollee ci ay obstacle woo la pour le saa yi bu paree ci xeex boobu football la Mimi Touré l'a vécu Amadou Ba l'a vécu combien de fois liñ naan nangam kenn du ko nax ñaari yoon bëgg a toog bëgg a toog bëgg a toog man démb li ma doon xaar xam mooy lan ñëw ñu ne le nouveau parti nii la tudd Amadou Ba day dem si ay élection député commencé nañoo waaj suñuy liste nous allons faire face à ce régime parce que nag bu ñu fàttee ne Amadou Ba était le candidat de la continuité mm-hmm. la coalition Diomaye formée par le premier ministre Ousmane Sonko le président du Pastef Ousmane Sonko était le candidat de la rupture lii moo fi am. est-ce que dina yomb mu ñëw rek parce que ñi toog dañoo xamante ak ñoom de. ñoom Ousmane Sonko seen gañe nguur yi daa yomb. mais peut-être position yi duñu benn. non waxuma loolu dama ne. xam nga le sénégalais aussi il aime tellement la facilité. mais ku dem bay laaj nguur nguur yow takkandeeru yàlla nga ci kaw suuf. nga ne yow doo subir doo dugg kaso. dee moom xalaatuma ko ci jëlee man kenn du ma attaqué du ma defante du ma wàcc sur le terrain man daal fi ma toog laay toog. wut samay lobby ak samay influenceur bari nañ ci nag ñu may gérer. loolu mooy problème bi est-ce que courage wala lépp léegi bi mu jaraloon ñoom. Ousmane na ko def wala mu baax. dina ko ko jaral c'est ça le problème. ma na ko def wala mu baax. Hmm. wala ñu ko topp ba ko loolu mooy dëgg Amadou Ba képp koy wax xamuloo koy wax ah xeex. lii de APR bis lii ah, lii APR deux di moom nee na moo bëgg a sol numéro neuf bi comme laa écrit bés bi le jour ba moo bëgg sol numéro neuf bi ba pare nga ne yow doo xeex Amadou Ba chaque jour moom day day day day day day day cof day cof wax di di am yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp comme mbër moomu la may bañ a dégg rasu mhm. mbër moomu may bañ a tudd rasu mbër boppam dóor day door nii arrière jéggi saako jël avertissement dellusi waat def nii def nii ànd ak mbër mu mel noonu dafa miti dañ waxante dëgg li may wax nii ñii ànd ak du Ba ma koo gën xam fukki junni yoon jolle ba pare ñu ngi naan Ahmed Aïdara mi ngi ñuy waxal mais del xool balaa bëccëg nga gis si ñett wala ñaar ci ñoom ñu ma saaga te saagakat baa leen di yónni ndokk am ku koy wax waxoo ko lii tànk moom dañ koy tàllal walla ñu lem ko. Mm-hmm. rawatina ci nguur gi mu nekk. génnal APR. am mm-hmm. ah, ba tey génnu fa génnul de ñi discours démb wane nañ ne ils ont tourné la page APR mais moom wanewul ne il a tourné la page APR su demee ci xeex bi yéen ci waa APR yu bare bëri dañ koy dem fekki ko. jël bay bayal. Mm-hmm. amul bay bayal amul neex ba pare du fi nekk naan ay un partie boo xam ne du nekk parti wu élection un parti du peuple par le peuple et pour le peuple. Uh-huh. parti ngay def élection ñoo taxaw nga xeex fu mu yem neex. que mm-hmm. le meilleur gagne. gars yi duñ ko ko wax de parce que dañoo ànd ak moom mm-hmm. bu leen ko nit waxalee ñuy jubilé ci suuf mais buñ génnee ci kaw di wane ne ñun dañuy défendre Euh, kii euh, Amadou Ba li ko waa ji wax démb lii ak lii ak lii Samba Kory Ndiaye ginaar yi ki ne na mooy li ngay wax ci Karim Wade rek. Mhm. waa PDC da ngay dajeeg ñoom ñu ne la Ahmed neexul ba neexul mais ñin nga waxal. Mhm. mais ñin nag il faut ci kaw ñu sóob wane ne comme que ñin moom lañ àndal. dugg na ci gën voilà mais li nga wax nii loolu mooy dëgg. Karim Wade toog fee ba ñuy ñu naan président Congo bi xaw ma moo ko nommé conseil spécial loolu yàlla bu mu nekk dëgg. aw ma ci benn preuve dama ko liir kese mais loolu yàlla bu mu nekk dëgg. yow nga ne da yor fii parti pour la conquête du pouvoir. beneen waa nekk ci beneen pouvoir nommé la lool loolu loolu loolu loolu Karim man daal affaire amadu Ba bi daal euh, Ndiaye jaata Ndiaye. Mhm. man daal lii laaj xalaat beneen bi nag mooy li waa yoor yoor liñ bind léegi nii. Mhm. pourquoi instant <laughs> pour quoi instant bi ñu waxee. mbirum reddition des comptes. merci beaucoup. Mhm. léegi ca ñoom ñooñu nekkoon foofu noonu yëpp ñu ci bare bari nga xam ne tudd nañ seen tur te moom tudd na seen tur démb ci comité euh, d'organisation affaire bi ñu tudd leen ci. Mm-hmm. bu ëllëgee loo ne ñul met ñu ne bi gars yi créé seen parti bi 72 heures après lañ leen commencé. lañ leen commencé Samba Kodu Ndiaye ginaar ak i nenam. yeewee ko bind de. Mm-hmm. fit wi la war a takk. def ni gone yi nee moo nekkoon seen patron ah xale yooyu de mujj nañoo mokkal doom ba yëg seen patron. nitu Amadou Ba loolu la tiitaroo di. Amadou Ba moo nekkoon patron wu ñoom Diomaye ak Sonko. moo tax nag ma ne la xam nga moom ñi fi différence ak moom ñeneen ñi mooy moom ñi fi nekk dañ koo xam. moom tam mu xam leen parce que moom moo nekkoon seen patron wax nga ko léegi moo tax ma ne est-ce que li nga wax léegi dina mën a yomb ci moom mu def ko. mais kon mu bàyyi. waaw loolu mooy problème bi est-ce dina am courage ak. arme bi nga xam te ne la soxla pour def ko. xam am na ñoo xam ne moom. grand yoo xam ne dañ leen wax ne leen yéen da ngeen a war a bàyyi. Mhm. Mhm. jox relève bi seen jeune waa parti ñu mën a méngoo peut-être ak ñi nekk fi am na comme que moom nit ñi boolewuñ ko ci ñi am ay juróom-ñaar fukki at ak yi ay ay déggal juróom juróom juróom-ñaar fukki at ak juróom juróom-ñetti fukki at lu dul ñuy xalaat ne moom mii mën naa créer parti mais bu deful lii ñuy wax nii lu muy def. Mhm. doo bàyyi demoo dikkoo ak li fi jot jaar yépp Amadou Ba bu doon bëggul nguur wuyu ma campagne électorale lay jeter l'éponge ndax li fi jot a jaar. Mhm. Amadou Ba tax ñu ñu convoqué assemblée nationale tuumaal ko ay mbirum corruption ci ay magistrat tuumaal ko ne moom moo éliminé Karim yooyu yëpp garaaw nee nañ ay opposants ñoo ko doon def di waa PDS ak ñooñu. mais yow soo demee ba ci biir ba mu leer na ne yow ki la parrainé coalition bi la tànn ci boppam. am nañu àndut ak yow. punkal mais àndul ak mhm. ñu ne trois milliards yi ñu dajale woon pour ñu campagner ko ba léegi laaloo dara amul benn leader bi mu wax ne leen dem leen ngeen jàppale ko lu dul ay responsable Benno Bokk Yaakaar doon def ay sorties di la tax de workat ak lu ne ba ba dernière minute. lañ ne punkal mi mujj na cee dugg ah nee na nañ leen jàppale am bi affaire bi jeexee tamit ni mu demee yow boo yéexoon félicité Diomaye tuuti Macky teel koo félicité gaa balaa yow nga koy félicité audience ba sa palais ba moom loolu c'est normal waaw bu amul woon jour boobu tamit passation de pouvoir bi moom dina am ala kulli ali dinañu dinañu daje. mais yow yooyu noonu yëpp xew fi gars yi nga ne xéem xéem xaaral rek demoo dikkoo xaw ma da def bañ mu indi la ay jafe-jafe xaw ma da bañ mu tëj la ñoom dem nañ ba ne nañ leen tëggaat encore élection présidentielle yi loolu yëpp yow ñëwaat nga ci démb <laughs> bu xeexul day te am sax moom moom xaw ma man muy xeex man nu muy xeexee wala xam nga moom dafa dafa ci ci wàllum charisme politique dafa am yu bari yoo xamante ne ko ci xaw a te ñu bari nag loolu la ñuy wax des fois c'est le charisme que politique boobu moo xaw a manqué ci Amadou Ba mais on espère que avec parti bu bees bi dina dina renouveler les choses sinon bu ko deful ça sera du pareil au même rek on va retrouver le même Amadou Ba et bu boobaa aussi di euh, koy contraindre mooy nouvelle jeunesse. Euh, bi nga nouvelle nouvelle jeunesse politique bi nga xamante ni moom moo fi daal di nekk parce que instant bi politique xale koy def mais honorable am na ñu naan dañu laa soxla ci législature bu bees bi de il faut nga renouveler waat. kan la. waaw dans les commentaires xam naa loolu rëcc na la. Euh, nee nañ soxla nañ la ci législature bu bees bi de. politique laa bëgg a bàyyi. ah déet mu ko ëpp naa def. samay mbokk woo. Hmm? politique moom. Hmm? politique dafa metti doom day. ah honorable nee nañu biir assemblée la. loo def nag nit ñi interprété ko neneen mais Euh, politique daal en tout cas daal. lenn daal moom moo ci moo ci moo moo moo ci tane. mooy ngay ñaan dara suñu borom ay nit tam di ko ñaan. yàlla may la ko. ñu ne la daa ko fi jàng ëppoo fi diplôme ëppoo fi nit alal ëppoo fi lii ak lii ak lii tund wu toll ni nangam am lu tolloog cinq cent mille personnes ñu ne la yow yaa ko jiite loolu moom boo santul yàlla xaw ma moom lan ngay def mais dama ne. Amina. politique ci boobu laa bëgg a bax mais mais honorable am na ñoo xamante ni ñooy choisir defal seen bopp mais am na ñoo xamante ni aussi askan bi ñoo leen di choisir mooy li dal euh, son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye donc muñ la nee dañ laa soxla ci ensemble kooku ndaanaan kooku ñooñu ay ndaanaan lañ mhm. ñooñu lañ te ñooñu ñooñu dañu ñooñu am at kii dañoo dañoo endurant da dañoo dañ dañoo am endurance mhm. ñooñu 2014 lañ def ba 2000 ba 2024 ñu sonn ñu ngi doog jëlaat suuf lu bees man 2015 rek ba 2022 bi ñu yegsi ci élection locale yi toqi naa man rawatina locale yi bu ñu ko poussé tontu rek ma faatu fa yàllaaw toqi naa toqi ñooñu dañoo dañoo dañoo am endurance ñooñu. déet waay <laughs> ñooñu bu doon. nee na toqi na bu doon athlétisme ga la dañ naan ñii dafa am lu ñuy laal. ñoo ñooñu ay Usain Bolt lañ ko. non non non ñooñu ñooñu ñooñu dafa am leneen lu ñuy laal ñooñu ñooñu dafa am lu ñuy laal. yow moom mënatoo bàyyi nga. ah boobu daal lañ def rek man daal fi <laughs> favorable nekk ci ba ci kanam rek. ci àddina mu koy sawaay. làmb nañ fépp de làmb nañ média bi làmb nañ politique bi xam nañ bëri na risque ñàkkub koppar bëri coono yàqub der gi mel ni tulleeg màlle trahison moom boo koy wër ba yegg ci politique wuy ma wutal kër toog fa. Fatou Gadiaga nee na vous êtes indispensable.